sëriñ bi maa lay nuyu. mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd bi di ñaan yàlla nangalu suñu jaamu te jégalu suñu bakkaar di rafetlu rek jataay bu tedd bii nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha di jiite ci kër kër sëriñ Touba gi euh, wax ko tey ne ko se jataay bi dama ko am tur wu ma ko tuddee. mu ne ma walla ma ne ko aljannatul ajila al muaddiyatu ila aljannatil ajila dafa am xasida googu sëriñ bi tuddee waaye jataay bi loolu lay wane mooy jataay la boo xam ne boo fi toogee ba ni nga fiy jóge da ngay dund àjjana ndax wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala surrin mutaxaabiliin lool nga fiy dund bokk yoo xam ne ku nekk sa moroom lay gënal sa bopp bëggante te yàlla tax soppante te yàlla tax jataay boo xam ne nit dana fi toog du wax lu naqar yàlla du xalaat lu dul sëriñ bee ci xasidaam di teewlu sëriñ bi di dund sëriñ bi di jàng xasida bi yàlla na yàgg yàlla na ko sax moom dañu tax a yàgg jiite waaye taw feexam xam la xëy na liggéey ba mu liggéeyaloon bàyyam ya ak magam ya moom la ko yàlla fay ji liggéeyam bii ndax cër bu rëy la waaye dañ ko ko téyeloon ba mu egsi jox ko ko te li ci gën a yéeme nag mooy moom dafa toppe bañ topp ko waaye mbooleen ñi doon topp lañu ñu doonoon ba tax mu leen topp mosu ci àtteeg bëtam mosu koo bëgg mosu koo ñaan mosu koo xalaat sax waaye nag loolaa tax yàlla xeexee jox ko mu toog ci jataayam bi waaye nag lim ko jural mooy rakkam yëpp dañ koo topp te yéene ko fii mu toog waaye mu delloo leen loola moom itam bëgg leen lool lool lool ba ku nekk yéene na la nga toog jataayu Sëriñ Tuubaa ba bu noon jëmmam ji lii mu yor ma mën koo xaaj ku ne jot ci doon ci dara ku ne doonum Sëriñ Tuubaa da koy def waaye xam na ne mënta nekk Sëriñ Tuubaa nan la mën a doon waaye boo ko mënoon dañu koy séddale moom lim doon jàppiwu ko boppam daa jàppi boppam taalibe Sëriñ Tuubaa àgg na ci sax di wax loo xam ne moom rek ko sañ wax ndax day dem ba naan man weesu naa sax di taalibe ci yéen waaye xaadam laa xaadam sa xaadam mooy puruñum puruñum naar puruñum naar ci ab sangam atte boobu la jox sëti Sëriñ Tuubaa yi ne man xaadam laa ci yéen waa koo xam ne foofu la teg boppam dayob ab cëram ci sëriñ bi ak cëram ci boroomam foofu nga koy xamee ku dis kenn ci boroomam day woyof toy ci bindee da koy woyofal day woyofal boppam ci bindee fi du yëg boppam mukk du gis boppam waaye cër bii mu cër bii mu jox ñi mu bokkal Sëriñ Tuubaa leen lépp ne ci seenug suuf jural na ko ñu bëgg ko ci seen xol bu mënuñu ko muñ ba lum ne ñu ànd ci ak moom ka Sëriñ Tuubaa gii mu koy defee rek lu bari war nañ ko cee jànge lu gën a neex toog ci kër goo xam ne kërug sëñ Tuubaa la woon démb kërug sëñ Tuubaa la tey ndax fii ñu koy defee bi sëñ bi rëddee jumaa ji ci biir kër sëñ Tuubaa gi la bokkoon ñu dem ay jamono ba kër gi mujj ñu daggal ci sëñ Basiiru bi ñattee dëkk bi mu féete foofu ñu dem ba jamono sëñ Abdu Lahat mu ne sëñ Tuubaa mënta ñàkk ci pénc bi kër sëñ Moustapha ne ko naa waxtaan ak samay bokk jox la kër sëñ Basiru gi sëñ daal joxaat ko terrain bi féete soow fayee ko ko fab ko def ko sëñ Tuubaa sas ko fa fa saas mu daal defar sas wa waaw loolee lu mu jural sëñ Muntaxa magam ju mu bokkal lépp moo defoon lii mu daal doon sëñ Tuubaa toog ci kër sëñ Tuubaa gii di fi jàng njàng nii di fi jàng xasida yi jàng ci njëriñ mu fayee ko sëñ Tuubaa di ko jàngal fii ci Tuubaa ci kër sëñ Tuubaa gii loolu mooy wa an laysa lil insaani illa ma sax wa anna sax wa sawfa yura yéene sëñ Basiru ci defar doon puso buy ñaw ci yoon wi waaye taxawaayu sëñ Moussa Basiru ci doon taalibe ku fi nekkal sëñ Tuubaa mu ne sa gannaaw dina liggéeyal loolee moo andi sëñ Muntaxaa tey jii mu toog jotaayam bii di jàng xasida yi fii ci kër sëñ Tuubaa gii njàngat mu rëy rëy lañ ci war a def xanaa daal bëgg tey ñaan yàlla yàggal ko fi. te jataayam bii di aljannatul aajila mu yàgg lool ñu di fi dund wala sax ne maa fi sudurihim min xillin ixwaanan ala sururin mutaqabilin ci lu yàgg yàgg yàgg yàgg te sëriñ bi di nangu lépp di teewee lépp ci baatin dina nangu suñuy jëf ak suñuy wax ak suñuy yéene ci barke yonente bi salaam salaam barke Cheikh Ramadan Mubarak barke Cheikhul Khadim jërëjëf Cheikh Mamadou Mountakha jërëjëf Cheikh Mamadou Mountakha yàlla nañ fa yàgg lool te wér te ànd ak yow bi. Bamba samaam. mu jug taxaw def la imaam te yow doo ci gan min nga imaam nee naa sa jiitu giiraxul Cheikh Muhammadul Muntaxa yow dangaa yàggala géey ci tool bi doonuloo ku géey am nañu naa mag ñaa la déey mosoo werante doo fital jullil sa waxtu nag te ñaan booy jàng saar jëkkeel laan booy taaye it nga yàgga ñaan jiitu nu topp lay jëfal ñaan naa sa waxtu wi di gee Cheikh Muntaxal Basiir yàlla na fi yàgg te wér ñaan naa sa waxtu wi di gee te yàlla def sa wér te yàlla def ak wërsëgee nga yàgg fii dikki dikkee yàlla di dolli say ndimbal yow sa liggéey am ci ndam ndam lu nit ku baax ma soona am sa dëkk bii di jëm kanam borom bi dolli laa sagal yow sa liggéey am ci ndam ndam lu nit ku baax ma soona am sa dëkk bii di jëm kanam borom bi dolli laa sagal